mbaa luy lu ñu warula siiwal li ma leen wax ci biir lëndëm wax leen ko ci leer li ma leen dey yégle leen ko ci kaw taax yi te bu leen ragal ñu mën a rey yaram te mënuñoo rey ruu waaye ragal leen ki mën a sànk yaram ak ruu ci safara ñaari picc ramatu ndax duñu ko jaay ci dërëm waaye benn ci ñoom du daanu ci suuf te soobul seen bàyyi